rajo woon waaw ñu ngi sant yàlla baax a baax nag ginnaaw mu defee bu ñu nangoon ndogalam ndax dafa ñëw moom faat ñu bala ñoo judd bu ñu jaar ñu tamit alalam la jël donc mënuñu leen rek dul ànd ak moom ci euh, place am bu mujj te place dëgg ñu ngi nii toog ci kaw bàmmeel yi ndeysaan xam ne kon àdduna moom dañ fay dem ne ñëw dañuy dem rek ah suñu bàyyi góor nag yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ndax xel dal na ci weer bi ko yu mu dugg ba dem ca xel dal tamit ndax dégg nañu diine jiite diine gu mag la ndax waa jàkka ji imaam yi ñoo toog di ko témoin te boo faatoo ñi toog di la seede lañ wax ci yow rek moom moo doon dëgg. kon boo ñu ngi jaale suñu doom suñu jarbaat suñu rakk euh, Modou Lo ak njabootam yëpp di jaale tamit magam ji nga xamante ne mooy Ibou Diouf te ñu bokk ci benn association bu ñu yëngatu muy association les sages moom tamit ñu ngi koy jaale way juróom woowu di ko jaale njabootu mooduloo njabootam yëpp. di ko jaawale écrit Rock énergie ci turu Xaadim Gajaga wax jii may wax nag maa ngi koy wax a ah, ci xol bu tooy ndax dee neexul kenn waaye nag comme dañuy dem daal bu dem jotee nañ dem rek di ñaan yàlla aussi mu gëj fi di ñaan wax mu loo tamit moom nu ko yàlla may xolu muñ fa ko bàyyam féete woon ci wàllu ñaan ci wàllu conseil ah, yàlla dina ko dénkaat beneen bàyyi boo xamante ne naam du mel noonu waaye dina ko mën a xool ci moom kon bokk salaamaaleykum wa rahmatullah